waaye actuellement ni gis naa ay bakkan yu bari yoo xam ne ñu ngi wàcc. waaye li ñu gis nii réew mi su xasee ba tàkk dana naqaree fay te fépp fooy xam bu yoboo nga dem fa ndax Sénégal ci kanam kon dootu neexati toog ci lii ma gis. ay jër jërë ngeen jëf mbokk internet yu ñuy déglu à travers partout dans le monde rawatina yi nii abonné ci bu mag bi ñuy wax Galsen People tey nag dañoo seet si benn kilifa benn ndaanaan boo xamante ne kenn dootu ko présenté si réew mu nekk ñaankatu yàlla bu mag. nek aussi fait bu mag boo xamante ne ñëpp ko ay résultats yu def à travers partout dans le monde tey nag dana def ay révélation yu doy waar bu ko gisee nii mu toog di jàng alxuraan gis na ci réew mi ay décès yoo xamante dina am procès aji Sonko bi tànk jeexul dee dina bëri sëñ bi wax na lu doy waar ñoo programme dañ koy bàyyi mu nuyu suñu internet السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكي نيوغ لين دي نويو بو باخ تاي دي لين سيارة دي جيتال سي نويو بي سيارة بي الخليفة العام للتاريخ مريد سرين منتخى مباكي البصير دي كو نيانال مو ياغ في لول تا عندك وير دي كو نيانال بولم كليفة ديني يب دي نيان تي ريو مي دي سنغال يالنا في سون بروم دف جام ان شاء الله ما شاء الله سرين بارم باكي بروم سوليسيون kaddu gi na solo bu baax a baax a baax waroon nañ commencé actualité nag mais xam naa dañ koy daal di commencé si wàllum liggéey bi nga xam ne dañ koy def ñu ñëw rek suñu première question muy wàllum seet sëñ bi dégg naa yow nga seet boo xamante ne seet bu doy waar la ba ko seetal danga nga koy gis luy secret bi. waa kay bismillah ba tey mbirum seet moom day lu am solo ndax ñaan ci jëm moom képp koo xam ne da ngaa bëgg di ñaan bëgg di am ay résultats yu mucc ayib bala ngaa xam nit ki lan mooy ay jafe-jafeem ak lan ngay def pour ay saafaraam mën a maanaam pour mbiram mën a am saafara la ci jiitu lenn la mooy faw da nga koy seet soo ko seetee mooy analyse xam ne mbir ki kii may seetal cangat mooy doxal ay mbiram wala nga xam ne kii xalwatu mooy doxal ay mbiram wala ay sarax rek su ko jëndee ay mbiram mën a baax loolu lépp nag mënoo koo xam li nit ki maanaam seetuloo ko nit ki nag ñun suñu xamee turu waajur wu jigéen xam aw turam xam li nga xam ne mooy date de naissance am incha allahu taala lépp loo xam ne bëgg nañ koo xam ci moom incha allahu taala danañ ko ci wax te lépp luñ la wax nag dara du ko dindi moo tax seet moom am nañ ci ak Euh, ak tawféex ju rëy a rëy tabaarakallah moo tax lépp lu ñuy def rek dañuy seet suñ ko seetee pare nag xam nit kooku wan yoon la ñuy jaar pour man ko wutal ay solution ci mbir mi ñu jaar foofu pour lii seet moom defe naa ne moom nekkatuñu gan dem nañ ba bind ci ay téere yoo xam ne ñu ngi koy partagé nit di ko jariñoo kon sakkanduwaa kon ñun suñ jëmm yi seet moom bañ ko mën a yàgg na lool macha allah Serigne Bara Mbacke borom solution kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax xam naa duñ la fi téye nag dañuy jàll dañuy enchaîner question yi ñu si si wërsëg sëñ bi mën naa ne am na nit ñoo xamante ne seen wërsëg dafa tëju te dañuy wër ñi nga xamante ne comme yow Serigne Bara Mbacke borom solution mu wutu leen solution si ubbi wërsëg jaamu yàlla yi. waa xam nga mbirum wërsëg moom moom day loo xam ne lu am solo la te doomu aadama bi ci jëmmam day nekk euh, parfois day nekk da ngay gis nit koo xam daa tëju maanaam du wërsëgam moo jeex ndax ku sa wërsëg jeex rek da ngay faatu te kenn ku ne tamit dañoo wax ne doo lekk lu sa wërsëg waaye nag doomu aadama day toll foo xam day tëju maanaam ay mbiram danaan kakk dara dootu dem dara dootu dikk mu jaaxle lool dara du ko mën a doxal waaye loolu nag lépp luñ ciy def rek dañ koy def ci biir alxuraan am nañ ci ay xeetu ibbeekaay yoo xam ne bépp ubbeekaay boo xam nit soxla na ko rek incha allahu taala suñ la ko defee lee diirub juróom-ñaari fan ci kàttanu yàlla moom euh, incha allahu taala dootoo ñëwee kenn su fekkoon ne dañ lay dimbale ci kàttanu yàlla da ngay te ndax nag lépp ci alxuraan rek lañ koy wéer damay bëgg nit ñëpp ñu jël lépp lu ñu yoroon xam-xam bu ñu yoroon ñu teg ko ci suuf jël alxuraan ginnaaw nee nañ ay julli lañ nañ xam ne maa huwa sifaa'un wa rahma wa nunazzilu min alxuraani maa huwa sifaa'un wa rahma alxuraan mooy saafara bépp jullit kon bépp jullit am nga ay aajo aajo ju man di doon sabab loolu ci alxuraan ñu nag dañoo nekk ay ñoo xam ne ay kilifa diine lañ li ñu xam mooy lii ñaan yàlla def ay xawaatim bind kenn ku ne la aaju ci yow ñu def ko pour defal la li nga xam ne mooy ibbeeku incha allahu taala ca sens nga gis ci sa bopp pour man a doxal say activité man a am xaalis comme ni nga ko bëggee incha allahu taala macha euh, allah Serigne Bara Mbacke borom solution kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax mais Serigne Bara nag xam naa nag damay ñëw si wàllum kaaraange ak jamono ji nga xamante ne dëkk ji dëkk bi mi ngi tàng dëkk bi instant nii kenn xamul lan moo xew sëñ jamono ji ki nga xamante ne amul kaaraange lan moo ko nar a waaw ko amul kaaraange moom lend rek lañ cey dëkk mooy képp koo xam ne amoo kaaraange bul génn sa kër bul xëy bul liggéey toogal fi nga toog ndax sooy génn di dee waaw sooy génn rek da ngay dee ndax kaaraange dafa nekk loo xam ne mbokk mi ku ne da ko war a am ku ne da ko war a am comme ni am réew mënta ñàkkee kaaraange noonu la nit ku ne ci jëmmam war a jëlee ay responsabilités ba du ñàkk kaaraange kon kenn ku ne dafa war a wut kaaraange ndax kaaraange mooy loo xam ne soo amee euh, soo amoon àddina ak li ci biir nit. ne mën ngaa nekk réew mu la neex nit bëgg laa yàq pour mu yàq la problème la ndax yor nañ genn xeetu kaaraange goo xam ne képp kuñ ko def ay ndomba la lu toll juróom-ñaari gaw jox la ko ba nga jëfandikoo ko mm. képp koo xam ne liggéey na ak lu mu mën di def lu mu jublu ci yow mm. loolu day doonaat ab bomb mm. exploité ci kawam te loolu kaaraange rek moo ko mën a may waaye képp koo xam ne amoo kaaraange daal bàyyil xel ne lépp loo am ci alal ak lu mu bari bari ak lépp loo am ci tur bàyyil xel ne muccagoo pour nga mën a mucc dëgg daal ci jiitu mooy kaaraange te kaaraange nag yor loo xam ne ci alxuraan lañ koy def te képp ku ñëw ak koo man di doon foo mën a nekk ci àdduna suñ juboo ci kàddu incha allahu taala ñu defal la ko suñ la ko defalee moom mën ngaa mucc moom xamal ne kenn du la liggéey ndax ni doomu adama dafa dafa yomba liggéey su fekkee ne amul kaaraange waaye ki am kaaraange moom damay naan mucc na lépp lu mu bëgg rek da koy daal di am ndax kaaraange ki jëm moo koy protège pour mu mën a doxal ay mbiram insha allahu taala kon mbirum kaaraange daal ku ko ku ko yittoo rek suñ borom defal nañu ci feex ju rëy rëy bu soobee suñ borom. macha allah euh, macha allah Serigne Bara Mbacke borom solution euh, kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax mais sëñ Bara nag xam naa dañuy jàll suñu beneen question rek muy wàllum bayre bayre jaay ak bayre boo xamante ne day ànd ak wërsëg surtout kaaraange. xam nga ñun bayre moom képp ku ñuy defal bayra ndax ñun doo ñëw rek ñu ne secret bi mooy dox ci bayra ñu defal la ko doonoo waaw dafa am ay xawaatim yu ñuy dagg nit ki ginnaaw bu ñu xamee sa turu nday ak sa turu ak sa tuur sa tur ak nday noonu lañuy ñuy sukkandikoo pour mën a xool ba xam yan ban bayra mooy baax ci yow ci ci mbir mi ngay yëngu waaye du jaag nit ki day ñëw rek nga ne ko lii mooy dox ci bayra nga def ko noono ndax ñun dañuy ndaw ñoo xam ne dañoo gëstu xam-xam bi waxtu gëstu jotee ñuy doon ay kilifa diine ñu bokk keppaar goo xam ne ay borom xam-xam rek ñoo fa nekk euh, te lépp lu ñuy def ci ñaan yàlla gi dañ cee am ndigalu suñuy kilifa soog am pour mën koo def ndax mbir la moo xam ne maîtrisé nañ ko lool ñun ay médecin lañ ndax médecin yi mooy xeetu nit ki ne dañuy dikkal moo tax mbirum bayra tamit euh, fa tabaarakallaahu koo xam ne ne tamit ñëw nga bañ xool ne bayra bii lañ la war a defal bayra bi nag day ànd ak wërsëg ndax ñun defaluñ la bayra boo xam ne nit ñi dañ lay coow rek nga jéem ñu naan yaa fi nekk yaa nekk te dara du dëkk dañ lay defal bayra boo xam ne ci biir bayra bi dañ koy rabbaaleeg wërsëg xam ne yow jëm yëmmi bayra bi da ngay saf nit ñi ba noppi nit ñi di yëkkati seeni alal di la ko jox xam ne wërsëg day yomb ci yow lool ba yow da waaru ci sa bopp ne lii lii mooy lan fekk na loolu lépp dañ koy sukkandiku ci alxuraan man la ko defal nga am ci résultat ci yomb lay doon nag du lu ndax xam bi yomb nañu ki am xam-xam dara du dara du jafe ci moom waaye ki amul xam-xam kooku mooy pour mu am résultat jafe-jafe ndax kooku day tànnatu te kiy làmbatu nag mën naa daj waaye mën naa ñàkk daj ñun nag lépp na ci alxuraan lañ koy sukkandiku rek pour mën a saafara aajo jaam ni incha allah.

bëgg ñibbisi mu tëleen am ñi nga xamante ne ñi ngi ñi ngi fii Sénégal nga xamante ne plus de quatre-vingt-dix pour cent jeunes yëpp bëgg nañ tukki bu demee di demande visa ñu leen di rejeté sëñ bi ñëw si yow noo koy jàppalee ba papier yomb si moom. waaw xam nga man moom mbirum papier moom defe naa ne du ci gan tey xeetu client bu ne boole nañ ma ko ci réew mu ne woo nañ ma ngir am problème papier États-Unis gi nga xam ne moom la ñu wax ne moo gën a jafe ay kayit ñooñu li ci li ma dégg liñ ma wax waaye man nag xaw ma ku gën a jafe li kayit li ma xam mooy man li ma lay defal laa xam li ma lay defal koo mën a doon su ma la xoolee ba mu leer ma ne yow mii mën naa laa ñaanal ndax bala ma laa ñaanal ci mbirum këyit dama lay seetal doo ñëw rek mbirum këyit rek ma bind nangam jox la déedéet ndax mbir mu ne am na ci ñoo xam ne dañuy déposé ay kayit la kay waral dafa am ay jafe-jafe yu ko waral jafe-jafe yooyu nag faaw nga xam ko soo ajo ab sarax ñu jénne ko pour nga soog a mën a dugg ci li nga koy defal pour mu am ci résultat waaye su fekkee yooyu yëpp xamoo ko jàpp na da ngay jël benn secret defal ko nit rek mu am ci résultat loolu mën nay jafe ndax mën nga ko defal du gis dara te fekk ne secret bi nga jëfandikoo wér na waaye nag kooku dafa am leneen lu nekk ci suuf te loolu faaw nga xam ko te li la ko mën a may rek faaw nga seet ko pour mën a xam ne kii papier waaye mbirum papier daal maa ngi sàkku ci yàlla ñëpp képp koo xam ne am na ci ay jafe-jafe xe dem ci xeetu sëriñ bu ne mu defal ko waaye ba tey daal gisut boppam ci résultat yi incha allahu taala su ñëwee man de set jours laa garanter juróom-ñaari fan. juróom-ñaari fan. li mu sept laa lay garanteel. première chose bi ma la ko jox. defal la li may defal. bu soobee yàlla la juróom-ñaari fan su ma nee. te tombeeg li nga war a sabab lu lépp def nga ko. xam ne lii jafe gi maanaam jénn gi mooy problème su ma la ko defalee sooy dem ñu lay jox sa kayit hmm? amul ma dem te ñëw kay ñu baree baree bare yéemu nañ ci hmm, hmm, waaw xeetu ëddee ju ne jox nañ ma ko ci nag waaw ndax nit am na ci nit ñoo xam ne nekk nañ ci réew yu sori ya am xaalis bu baree bari waaye pour ñu ñëwoon Sénégal rek problème pour gis seen jaboot rek day nekk loo xam ne maanaam problème lay doon waaye loolu lépp daal yàlla dogal na bañ ci jëflante suñ borom defal nañu ci lu taw lu kawe suñ lu kawe seen jortu ñoom ñooñu ndax yàlla mom lañu ñaan waye biir gi ñu ñaan yalla ñun ñoy sabab lu mbollem lo xamne sabab bi war nako dañ koy def suñ paré la ci des ñu baye yalla tay inshallah allah ko xamne matal nga sabab bi yalla day dangu sa ñaan te suñ borom dogal na nek am nañ ijaaba lool ci wàllum ñaan ndax suñ secret du lara lu du alquran ta hmm. alquran lañ taqool wen quatre wen kat alquran lañ taqool ta alquran lepp lo ci bëgg def wala nga bëgg ko ci dindi man nako ta lolou yalla tawfiq nañu hmm. sirup alquran yalla jaglel nañu ko incha allah macha allah euh, macha allah Serigne Bara Mbacke euh, borom solution bu ngeen déggee borom solution nag mooy maanaam problème bu ngeen mën dem seen àdduna bu ngeen ñëwee Serigne Bara incha allah seen aajo dina faju xam naa nag du ñu def lu jàll nag suñu beneen question muy wàllum nopp tasxiir boole sëñ bi euh, nopp bëri na li mu koy dégg mais est-ce que réellement nopp lu am la wala lu wér la. waaw nopp moom ku sukkandiku ci Serigne sii ma gis ci internet moom doo ko gëm. ndax danañ lekk sa xaalis nit ñëw na ne ma lu tolloog nangami sëriñ lim sëriñ yu bare bare ne yónnee naa leen nangam ci xaalis pour ñu noppal waaye la waaye waaye awma résultat hmm? ma ne ko de soo njëkk woon ci man hmm. doo dem ci keneen waaye nag xëy na loolu lu yàlla dogaloon na di nga jaar ci ñooñu hmm. waaye su fekkee noob rek mooy doon si te loolu moom soo tëddee bu yeboo nga nelaw mu ma looy wax ne ma ne ko waaw ndax mbirum noob dama cay yor maanaam lu tollook mën naa laa wax ne quarante nopp yu bokkul quarante nopp yu bokkul te bu ne jekku naag euh, waxtu woo ñëwee hmm? waxtu woo ñëwee moo xam muy guddi moo xam muy bëccëg waxtu woo ñëwee manes naa laa noobal ci waxtu euh, ci ci nopp bu ma soob quarante nopp boo xam ne bu ne wér na noo noo ñëwee rek ma xool nopp gën a nekk sama xel rek ma defal la boo te bu ma la ci defal day day lii ndax yëpp dañ koo testé ndax man bi may jàng xam-xam hmm. di gëstu xam-xam la ma njëkk gëstu mooy nopp nob bi ma koy xam hmm. boobu maa ngi ca daara ja pareegu ma sax ca daara ja daan noobal ay nit ñu daan ci gis ay résultat hmm. mu nekk loo xam ne yàlla dama cee teel a may ak tawféex hmm. muy boole moo xam góor ji maanaam koo xam ne da am sa patron ngay liggéey ak moom waaye daal ni yëf yi nga bëgg noobal la ko ba yéen ñaar seen rawxaane su boobaa rawxaan ci mbirum rawxaan laay liggéey su ma liggéey seen rawxaane boole seen rawxaane faaw ak déggoo day am seen biir bu soobee yàlla te moom képp ku ñu koy defal rek incha allahu taala moom du mat ñetti fan du ko mat incha allah nga am résultat hmm? ndax jooni jooni la nekkul loo xam ne dañ lay appelé ay bis nan la na noonoo ñetti fan daal su ko matee daal hmm, wax dëgg yàlla moom far foos da ngay am résultat neex na da ngay am résultat te lépp ci alxuraan rek laa koy def te su ma xasee ba noobal nit ki ala kulli al dootu dañati day déet da tubaab ah nopp nopp tubaab kay li ma koy def bari ñaata nit ñoo may woo di ma boole ki ay tubaab hmm. ñaata nit ñoo may woo fii ne ne ne ne ma dama am benn soxna nangam ba ma lii mm-hmm. leeralal ma am lu ñu bëgg ci moom ma ne ko loolu kay du problème bi mm-hmm. su depp su fekkee jubu nga ci rek incha allah suñ juboo ci kàddu ñu defal la ko loolu lu yomb la mm-hmm. ndax nopp tubaab du du dara lu lu yomb la loolu lépp xam-xam na nag ndax toog di wax yomb na waaye euh, sëriñ si mën nañuy wax wàllum théorie waaye pratique mooy seen problème léegi nag nit da ngaa war a mën pratique mën a théorie waaye nekk ci théorie bi te pratique mënoo ko loolu da ngay lor ñi ngay jëflanteel daal nañ ragal yàlla bu baax ci ñi ñuy jëflanteel ñoo xam ne suñu bokk lañ xam-xam bi ñu am ñun yàlla moo ñu koy ku man daal na def ku mënu timit na bàyyee ñi man dañu def incha allah macha allah euh, Serigne Bara Mbacke borom solution kaddu gam na solo bu baax a baax a baax dañuy daal di jàll suñu beneen question bi nga xamante ne mën naa ne moo jaaxal sénégalais yëpp muy mag muy ndaw ay jamono sax mag yi la gën a dal mais dafa tasaaroo ñëpp lay dal muy wàllum néew kàttan tële impuissance sexuelle sëñ bi da ngay faj impuissance sexuelle. waaw loolu moom faj ko lañ ngi def xam nga sëriñ si dañoo wax ne dañ ciy ñaan loolu dama koy faj faj laa lay def te wadd naa ko ci seexul xadim maanaam sept jours yi ma la wax su ma tudd ma ñëwul ma delluwaat la maanaam ma delluwaat la sa xaalis sept jours laa la wax xam nga néew kàttan dafa bari ay façon am na koo xam ne moom dafay am na kàttan waaye kàttanam dafa faible maanaam day gaaw a daan day gaaw a yëg boppam. am ci koo xam ne beneen façon la am façon bi mooy moom pour mu pour awraam jub rek day doon problème am ci koo xam ne awraam moom dafay dellu waxtu ne ba mu ba mu sentir ne day dellu am ci koo xam ne moom daa mënut ay ki nga xam ne mënut moom moom du yëg boppam sax waaye tële la waaye daa nekk loo xam ne judduwaale ko kooku mën nañ ko faj kooku nag bokkut ak ki néew kàttan bokkuñu ndax néew kàttan ak tële dafa bokkul kii mën na waaye doole moo faible kooku am na ci benn eh, garab yu jëfandikoo ci alxuraan jox ko ko ca su fekkoon ne dafa am 60 wala mu am 50 dañ koy yóbbuwaat bam ba madra 100 ta 100 go li dess ci ak dundum dootu waccati hmm? su fekke ne ki nga xamne mom awram day delu euh, xam nga da ngay gis ñoo xam dañ nan dañuy yok awra awra dee ko yok awra kenn du yok awra. dedet kep ku taxaw gem lo nan dama yok awra waxu deug hmm? ci ay nar kep la nek sidit bi hmm. day lemu parfois. sidit bobu nak amna ci garab yo xamne soko soo ci sens sidit bi day bayeko pour mën a loolu mooy waral sidi di nga gis ko xam ne awraam day dellu mu a sama awra bi dafa ndaw nit ki nag dama yokk awra andil bant bi nu mu loolu du dëgg amut pour ma xamal leen yéen ñëpp ku gëm ne na amut loolu du dëgg loolu man maa ko wax te képp koo xam ne weddi na ma rek ak koo man doon contacté ma xamal leen amut waaye nag sidi bu dellu bi am na ci dëkk yu ñu ciy def incha allahu taala day ñëwaat koo xam ne tamit dafa tële tamit dañ koy faj sept jours rek ñoom ñëpp sept jours la. lu waral assurance bi garantie bi. waa léegi xam nga xam-xam da moroom ay tappale. nit ki su fekkee ne da man li ngay def. lambatuwoo ko. mboolem coono bu ne daj nga ko pour am ko ja. mboolem adduna bépp su ñëwoon di defee yow interview waxal li nga xam rek. su fekkee ne xam nga waxal soo xamut neel xaw ma ndax yàlla rek mooy ki nga xam ne tëlewul dara ku dul yàlla am na loo tële ndax wàllum kattan ci jëmmam am na ci ñoo xam ne produit yi ñuy joxe nañ ko bàyyi moom sëriñ si. produit yi ñuy jox client ñu koy naan di am problème bopp nañ ko bàyyi. ñoom ma koy réclamer lu baree baree baree baree. Ah, baaxul day loolu li muy def ci ñoom seen kattan day gën a faible pa pa muy dolleeku. moo tax kattan daal ñaan naa ci yàlla ne sëriñ si suñ nangoo mën nañu signé contrat ma bàyyi leen lépp ñu def ko ñu bàyyil ma kattan diiru deux mois ak man ak sénégalais. subaa nag lépp lu may ñaan lu ma mën ak lu mu mën naa bàyyi loolu ma jël kattan léegi ñun ñëpp bàyyil ma kattan diiru deux ma xool ban résultat laa ciy def. Hmm. loolu moom ñaan naa ko sëriñ sépp moom nañ bu kenn waxate ci kàttan nañ ñoom ñëpp nañ xool leneen luñ def bàyyi maag kàttan rek ndax kàttan day loo xam mun mënut a ñàkk ci doomu aadama bi mm-hmm. comme ni lekk ak naan mun a ñàkke moo tax maa ngi yàlla na ma yàlla tàggatal ñoo xam ne am na ci ay jafe-jafe pour ma saafara seeni i mbir yor naa ci ay garab yu efficace yoo xam ne maa ko liggéey te ci alxuraan képp laa ko sukkandiku pour mën koo def waaw incha allah macha allah Serigne Bara euh, borom solution kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax képp koo xamante nag am nga jafe-jafe yooyu mu tudd da ngay woote si numéro yi affiché suuf baaru écran bi incha allah boo ko woowee say aajo dina faju sëñ bi nag xam naa dañuy jàll nag suñu beneen question rek muy wàllum hémorroïde mu nekk loo xamante ne solo na tamit jaamu yàlla yu bëri. waaye hémorroïde timit ci jëmmam day day nekk loo xam ne mm-hmm. li koy waral tamit day bari mm-hmm. waaye jëmmi hémorroïde ci jëmmam mm-hmm. comme li ma wax ca kàttan gi rek xam nga ñaan daa am loxo xam ñaan la bayra dañ ciy ñaan defal nit ay ay nangam mu am bayra waaye am na loxo na ne faj lay doon comme sa bopp yi métti wala leneen di la métti nga dem ca médecin bi mu opéré loolu man soo ñëwee loo xam ne ci hémorroïde dama lay faj te wat naa ko ci yàlla traitement bi ma lay defal doo doo jël traitement mu jeex ngay ñëw ma lay doon sa déedéet benn yoon laa lay jox traitement bi wax na ñaata fan nga koy jëfandikoo nga jëfandikoo ko tàqalikoo ak émiraux. Hmm? tàqalikoo ak émiraux te ñim sonal dafa bari te émiraux su la a en général pour nga am kattan day day day doon problème da ngay gis koo xam day ñëw ne dafa new kàttan fekk na néewul kàttan waaye émiraux bi moo ko sonal sonal goo xam ne faaw day jàpp ndoxum mëniw wi maanaam ndox mi di di woyof maanaam dootu talati manam su demé di jaxasu soxnam sax pour mu sawar sax pour awram jox sa day don problème fekk na fièvre yi dajé ci mom moy bari hmm. légui su fekk ni imruk rek mo don ci yow imruk dama koy fat hmm. su yeen say ma fat nit ko xam dafa wax ne new carton la def hmm. ne amna problème new carton amna problème imruk ma bayyi carton gi man ko xaram fat imruk gi da ngay fat imruk bi ci sens rek mu ne amna carton fekk na mom new don carton waye imruk bi mo japp ba carton gi faible pour mu jaxasu soxnam day don problème motax imruk timit yor nañ ci ay garab yoo xam ne ñun ñoo ko liggéey hmm. demuñ ci benn sëriñ demuñ ci benn kenn mu defare ñun ñoo ko defar gëstu xam-xam ba xam lan ak lan la boole lañu compose mu nekk lu wér loo xam ne amul benn jafe-jafe képp ku ko jëfandikoo am ci résultat te maa ngi sàkku hmm. incha allah képp ku ci am jafe-jafe rek hmm. su yàlla dogalee ñu war a jëflante ñu saafara ci say mbir ndax lii suñu yitte rek mooy dox ci li nga xam ne mooy ajee askan wi pour askan wi mën a am solution ci mbir yi ñu sàkku incha allah. Euh, macha Serigne Bara Mbacke euh, borom solution euh, kaddu gam na solo bu baax a baax danaka nak waxtu bi jeex xamna rek dañuy dal jall si question actualité yi nak xamna naa bi war def ay révélation yu doy war ñu déglu ko nak sëñ bi nak la nga xam si jamono ji nga xamantene Ousmane Sonko mi ngi waajal procès le 16. dëkk bi instant jamono ji mi ngi tàng tàng boo xamante ne gaa yaa ngi si mbedd bi di xeex Ziguinchor rek Dakar sëñ bi la nga gis yan révélation ya nga xamante ne moom nga ñu nar a may. waa mbirum actualité moom liñ ci wax rek mooy mbirum Sonko Sonko nag day koo xam ne moom lu koy toon lu koy maanaam nekk lu luy tax mu doon mu ñàkk nekk président loolu yi loolu yàlla bind na ca aliwa ji mi binde ne Sonko président lay doon te 2024 lay doon hmm? loolu nag waxeewu ma sama bakkan waxeewu ma loo xam ne dama ko kalkin ci ci wàllum baatin ak liñ seet ak liñ gis rek la wax ndax am na ci yoo xam ne su la ko yàlla nattoo ngay jànkonte coono yooyu dafa am lu la yàllay préparé pour ëllëg yow nga xam askan wi lan lañ investir woon ci yow nga xam métti du askan wi Sonko mooy ki nga xam ne ñun ñëpp nañ ko gën a ñaanal donte nag actuellement nii suñ xoolee ñoo ngi koy jékku ci wàllu mystique lu baree bari lu wér la ndax nag li gaañi financé pour euh, maanaam daaneel sunko ci kuñ ko financé nga daanu waaye nag Sonko day koo xam ne. yalla moko samp pare motax neexuta daanel waye liñ financer pour daanel ko bari na lool léegi sonko momu 2024 insha Allah taala président lay doon waaw insha allah te projet yi mu nekk nii dana nuru ay jafé jafé de waye lepp lepp lepp ay banex kep lay mujj hmm? waye ñom ñi diko fitnal hmm. sénégalais yene atté dé hmm. ñongi fitnal sonko ñepp ñu bari ci nit ñu ñongi ngi sonko lool ci waye bis bu ah, Yalla dogalé ba yalla wëlbatik jamonom ba ñii ëllëg ñu leen di contre na ngeen ca mën a maandu kon ndax nag dara saxut mbirum yàlla rek moo sax léegi kon Macky Sall lii muy def lépp di ko bund xatal di ko yëpp na na arrêté yooyu ñu bàyyi sunko te jàmmi Sénégal mu ci Sonko. jàmmi Sénégal mu ci Sonko mu ci Sonko pour Sénégal am jàmm mooy ñu libérer sunko loolu mooy jàmmi Sénégal li fekk Sonko li fekk Sonko ñoo ngi koy bàyyi maanaam ñoo ngi koy bund xatal Sénégal du nekk ci jàmm. te manifestation yi ñuy jëm nii ay bakkan yu baree baree baree baree bari danañ ci rot. Hmm? te ndaw bu ci amul kaaraange maa ngi sàkku na nga toog bañ a jéem ndax soo jénnee far force da ngay dee. li nga wax de. waa xam nga Sénégal actuellement dafa am dafa am gàllaaj yu ñuul yu ñu jëfandikoo te yooyu mosuñ koo laal. Hmm. te loolu dañoo seetlu ne ci état bi lañ ko gisee gàllaaj yu ñuul yoo xam ne moo ngi am Sénégal hmm. moo tax kenn ku ne daal nañ jëlaat suñuy responsable ñun ñëpp te Sonko nañ xam ne ne mbërum yàlla la yàlla moo ko fi teg ëllëg nag yàlla mën na fi tegaat keneen li ko yàlla may nañ ko ko nangul ñun ñëpp ñu xam ne kii yàlla da koo may ñu nangul ko ndax koo xam ne man gis naa Sonko lu tollook nit ñoo xam ne politique mos leen a ñor ñoom jëmmi Sonko ci jëmmam dañ koy jàngal alxuraan ngir Sonko mucc dañuy jàng ay yaasin ngir Sonko mucc te képp ko xam secret yaasin di nga xam ne du ay caaxaan loolu lépp na su fekkee ne am na ay kilifa yu koy def jëmee ko ci mbirum kuñ naan Sonko kon kooku ay bu yeboo jéem cee teete bu yeboo nangu dogal bi yàlla kon daal loolu daal lañ doon wax ci wàllum ak teyaale bi incha allah. macha allah euh, macha allah Serigne Bara Mbacke euh, borom solution kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax euh, comme ni nga koy waxee rek lu duuf si nag bi xajul si cin bi da koy daal di bàyyi mu nuyu suñu mbokk internet yu ko doon si daal. waaw yéen ñi fi ñëwoon incha allah pour taataan xam-xam ñu ngi ñu ngi leen di jégalu coono yi ñëw bi bu baax a baax leen xamal li ñu ñor rek du lenn. lu dul euh, jaam ñi ci jëmmam mën a am solution ci mbir yi ñuy sàkku xam-xam yi nag day xam-xam yoo xam ne mag ñi ñoo fi bàyyi woon yàlla dogal ñu gëstu ko am ci lu wér pour taxaw tamit pour saafara ci ajo jaam ñi kon daal li ñuy ñaan ci réew mi mooy yàlla ñëpp am jàmm euh, Sénégal yàlla fi jàmm sax ñi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe tamit yàlla na suñ borom jénne leen ci jafe-jafe yooyu ñi nekk ci prison yi tamit yàlla na leen fa yàlla jénne yàlla suñ borom def ci réew mi jàmm kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa